xam ne dama doon ñëw ñu ngi yëkkati seet si groupe bi bi ñu ñëwee ba fii bay wàcc autoroute bi laa dégg ñu yaa ngi euh, dama ne woon dama moom patron bi <laughs> léegi nag li am mooy euh, ñaari victime lañu rek yu daje mooy yow victime nga yaa sa parti ci réew mi rawatina jëm jàmbaar parce que wala faj yi ñëw nekk victime mooy yow da nga am droit def sa meeting foo xamante ne ci territoire yu Sénégal la euh, foofu football naa ko ba tey du sax voie publique ñun organisé ñu koy jàngal ëpp ñaar fukki yoon ci lu ma xam mosuñu am sax euh, autorisation ak bàyyi baax ak mbàkki bu daaru salaam ñun ñëpp foofu lañ doon defee suñuy jàng kon mosuñu fa am benn yoon buñ taxaw ci koy ñaan autorisation mosuma gis sax ku fay def événement euh, ba am autorisation te am naa ci benn preuve mooy Cheikh Béthio dafa dalaloon na fa Ablaye Wade foofu def na fa ay jàng ñaari yoon bu mu fekkee loo xam ne wóor na la ne moom jàpp naa ne amul autorisation kon donc victime nga rek boo xam ne euh, démb ak injustice la bu buñ la tegaat euh, Walfadjri nag nekk moom tamit victime parce que dañ ko ne fenal askan bi mooy boo demee bu mitin amee waneel mitin Ousmane Sonko waxee leneen ñu ngi tàgg leneen waaye nag beneen réalité am yëpp bu biti boobu askan bi jàpp naa ne li ñu am tey dafa wane ne jëwuñu si dina ñu des benn patron de presse bu nekk ci territoire Sénégal gii dañ ma sa tëj kaso ñi fa nekk ñëpp xaw ma lu tax ñu jotee dara mais mu si li gis ne jàpp nañ ko mbooleem ñu am ay télé wala ay rajo yooyu ñu xam télé wala bokk télé yi su demee ba suñ jóge fi di nekk ñaareelu yoon pour tëj signaalu Walfadjri bu ñu ñëwee ne lan la Walfadjri def duñ ne dañoo am duñ ne dafa am ay kàddu yu duñ wax dañuy wax ne rek doon nañ askan bi ba ay daan fekk nañ ci loolu nag kon day wane ne lii daal lu neex la parce que signature la boo xamante ne euh, day wane na rek seex mi Sidi mooy bàyyam mm. te ni ko Sidi bàyyee woon tamit ma Moustapha Diop bi ñëwee jëlul kër gi xool yeneen tànk yu mu jaar parce que bi ñu siy di nekk même problème yii ñuy am moom lañ doon kon bu ñu continué di am même problème yi ba tey kon day wane ne la war waaye ñun soppeeku a nekk rek ci lañ nekk di lancé rek sénégalais yi. ki naa ko ca weer yéen ba nga ba nga ca koor mhm. YouTube bii mooy plateforme bu gën a baax télé bi sax bi ngay jàkkaarloo su fekkente ne am nañ lu dëgër Babacar Diagne bu ko neexee saa boo añee mën waaye bu ñu amul ñu bu dëgër bu tëjee dina am ab gaañ-gaañ bu muy def jàpp naa ne nag tey am nañ saa su président Ousmane Sonko nee na na ngeen abonné kon na ngeen abonné abonné leen ñu jógee ci defe naa ñu bëgg a dugg huit cent mille ñu dem parce que am na yeneeni effectivement yu am ci suñu kanam te nag danañ ko wane moom waaw bu Babacar tëjee ñu ne ci YouTube bi rek baaba moom ku mu tëjal la waaw day moom président bu ñëw mu tijjil lay buntu waaye moom day tëj askan bi di tëj nag kon ñun ñooy ñun ñooy def suñu bakkal fee gis nga yàlla yàlla man na ma wax fii ci yàlla ndax ab waaye yàlla moom daa aay gis nga ba Ousmane ba Macky Sall toogee ne day détruire euh, opposition dama xam ne rek lay des mooy ñoom Farba sama wax ak Souleymane la nu ba xaritam bi borom si suñu an euh, Pape Samba Mbour yàlla xam na ne ñooñu la Macky Sall doon ay adversaire politique ñooñu la jëndoon bàyyi leen PDS ñeneen léegi yéen nekk ci ak kii bi nga xam tey Ousmane Sonko ko wax Pape Samba Mbour ko waroon nekk fii euh, dañu faal nekk pharmacie pharmacie nga nekk loolu la ñu Macky Sall yéene woon waaye ndeke yàlla daa aay yàlla denc booy boo xam ne mi ngi mel ne nga am sa jiw rek jël ay xortam bëgg leen dugal fii yàlla indi mis yàlla indi booy booy xant ñi ñi ñi programme woon yëpp yàlla fomb bi mu toogee tamit daal ne du ma tëjati journaliste damaa wax ne du ko tëj leen tëj ci kaso yi mais fan la leen tëj mooy day tëj seen laaj jël xaalis jox leen ñu ci mën a jënd jënd leen di jënd ba dootu wax yàlla indi youtube mu tolloo sa jamono bu ñu tëjee fee rek ñu ci noonu noonu la ko yàlla léegi nag kon affaire bi amul ragal wal fajiri moom Ousmane Sonko toog fi ak mu ñàkk fee toog lañ yemale li ñuy def yàlla moo tax ñu koy def dëkkal ji tur yàllaa ko téye ak góor yàlla kon nag amul kenn koo xam ne li ngay def duñ ko nakk nakkal li ñu nekkoon démb ak bërki démb ci la ñuy nekk di wax Babacar Ndiaye moom leer na ko ne li def démb dafa jaay doole nit ñi. donc kii leetaram boobu dégg naa ko démb bi di ko wax. dafa wax ne journaliste yi ñoom irresponsable magum 70 ans nag bu ñu jëlee groupe bu irresponsable ne leen yëgal leen kon yaay seen bàyyi kon moom que moo jiite ñu ñu ngi responsable jiite bopp ay irresponsable yi maanaam ma mag xam na moo tax mu for la ne la jiite la yaa ngi leen irresponsable bi kon nag loolu dong la ñun li ñuy wax mooy métti na ñu ko métti na Sénégalais yëpp di wax rek suñu daal dinaa ne tey ma wax nga baal ma ci lu gën Ousmane Sonko nii <coughs> jàpp naa ne amul fii kenn ku am numéro wala kuy wax ak kenn ku nekk li ngay def yàlla la nga yëpp di ko def su ci dee su su fekkente ne dañ ci gis ne arrangement daf cee nekk mën nañ ne ah, waaw moom diw lañ faral man de fekk naa bëgg 2011. fii Macky Sall ñëwee te gannaaw takkusaan sonn bu la. Mhm. fii fekk ak Sidi Lamine Niass booba rek. ku mu nekkoon nga dañoo faral Macky Sall waaye nag Walf moom soppi ko waaye nit ñi nag ñooy soppeeku. Hmm. loolu yàlla ko def. Sonko bi amu fi kenn ku koy faral wala kenn ku fi message naan ko waxal na lii wala kenn ku fi na lii ñun dañuy génn ci penc di ko wax ñu ne ñu dëgg googu bu ngeen ko waxee ñu dañ ci am arrangement ma ne leen waaye man na ma ne Moustapha Diop mii ak Oustaz Issa Tine mii amu ci koo xamante ne di nga wax ak wala mu ngay bindal wala ngay xool lenn loo xam a arrangé na nit yëpp yëg ba taxaw ci buntu bee di yuuxu loolu la ñu ko yëgal waaw loolu dong la waaw fii moom Sonko kuñ ne woon xoolal fii Sonko looy bëgg ci moom defe naa ne doone bii parce que bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee góor ñun ñëpp ay góor ñi bu dee jigéen ñi am na njëkk ba noppi kon liñ bëgg ci moom du affaire ay affaire ay ay taarak affaire ay farak affaire ay féete ay affaire dara réew mi moo manqué ay waxkatu dëgg wala fu bari ay waxkatu dëgg looloo tax waa réew mi ñi jiite réew mi wala fu mën a jubóo wasalaam